comme retiré nga sa plainte. Hmm. bàyyi nañ ñi ñu war a bàyyi. Hmm. voilà mais kër gi sama dernière intervention moo nekkoon noonu loolu mooy defati intervention parce que mënu ma nekk ak samay nit ak samay collègues waaye di seen kanam du ma ko def chaque jour ñu ne famille bi chaque jour même famille chaque jour même famille loolu moom sol naa ci. jërëjëf bàjjen nag hmm. seen sœur la mais man décision bi ma jël mooy wàcc ko mu dem yoonam bien sûr waa ah, bokkul parce que sama der lay yàq non loolu tin ma ci rek tin ma ci def balaa ma tontu ci li nga njëkk a wax ci lii laa lay tontu bi noom bir na ma ne ci kaw suuf binom yow rek laa yorom yaa mën a yor bàjjen teg ko ci yoon ndax bàjjen am na lum la ragale te it gis naa ne bëgg na la mais keneen ku mu mënti doon boo ko waccee mooy mooy yàqu na dama bëgg nga tin ma ci loolu dinañu gën a waxtaan ak moom waaye leneen li nga wax ci maanaam bàyyi retiré plainte bi ndax su ma ko retiré wul sama der day ñaaw kii nga xam ne noo bokk ndey bu nu ko téye téye dërëm ñu ne moom de téelu na ay ay nee daa ñib si uuf si ay njab ay ay mbokkam di téelu di leen téye looloo tax ma retiré ko waaye ña nga xam ne ñoo doon def ñaaw téef di jaay yàmba téye nañ leen loola baax na waaye ñii nañ leen wàcc kii mënuma ne ci biti mu ne ci biir nit ñi li ñu war a bàyyi mooy bu la nit convoqué rek nga di tëj nañ ma bàyyi ñu loolu dañ la tudd ci mbir ñëwal leeral ñu toogee def confrontation biñ toogee xam nañ ni ñii lañuy wax dañoo taqal ñi. voilà dañ doon fekk. du dëgg léegi nag bàyyi nañ leen mais ñoom daa beneen fee bu leen téye. jour biñ leen di jël si pour ñu ñëw wuy si. waaw biñ ñëwee dañ la fekk ak yàmba. yàmba. xale yi ñu ngi doon tëj kër waaye xale yi xam nga ne yàmba leen fi nekkee lan la nu baxalal nii ci warga wa naan ko nelaw fii. waaw joxoon nañu fi warga yéen a naanul yamba yi. naan nañu fii warga lañ ñu jox warga ñu naan kii leen ni indi leen ataay. Hmm. waaw kii moo tax indi ataay. ñu jox fii ñu naan ñetti fan ñuy nelaw fii la ñu nelaw ci saal bi. waaw loolu tax waxu leen ko. ah, ah eh, kii de yow leen ñaanoon ataay. waaw même caam ni ŋàjj ci nit ñi ñun koy caamalu tooñ rek taxawaalu indi fi doom ju ne. moom moom moo ñu tooñ rek waaw mi ngi noonu. ñooñu moom xaw ma ñan mais ñoom moom dem nañ. ah ay eh, jàll nañ defeere nañ leen. loolu du ma ko négocier man ay affaire drogue moom. Eh, jarul sax di waxtaan. balaa ngaa egg si tàppi nañ dossier bi ñëw nga dem nga amul taxawaal sax. Ah. binoom xam nga kër gi dañ di kër goo xam ne dañ koo war a waxtaane ndax li fi ne te tey degul ci yoon daa bari. Hmm. dafa bari ay dóor rek ñii ne fi di dóor di di yooyu moo mënta wéy. kër gi nañ ko teg ci yoon waxtaane ko. commencé par yow. man mi may door man yow yaa ñàkk fayda yow yow la ñu war a yow ñàkk fayda di suñu mag waaw taxawaalu ci àll bi réew yi ci Afrique yëpp dem nga fa ñëw di doxaan di gelantu waaw di daay jomba ñaaw foo toog di baatare di joxe yow la ñu war a wax waaw mbir mi daal lenn la xam nga ñàkkante dafa ñëw nañ ñàkkante. Ah. waaw nañ ñàkkante sama sama un million cinq cent na ñëw man mën naa régler sama bopp delloo ma ko sama un un million cinq cent bi mën naa la koy jox. andi loolu du dara ci man. andi waaye it désisté naa ca ca foofa. léegi désisté naa. waaw kay décision ndax dama ko doon jàppale. bëgg koo fayal xaalis bi mu yore foofu. léegi nag dégg nga yow sa kanam. fay fayaluma ay dóor la. bi mu ba mu fa jógee ba bind. un million cinq cent. Euh, million cinq cent xale yi fii ñoo ma fekk fii jël xaalis bi ci man. Eh, eh. fii lañ ma man eh. nelawal. jël xaalis bi ci man. waaye am na woote naa ñu ngi may war a yónnee xaalis buñ ma yónnee ñoom ñëpp ma jox leen seen xaaruma loolu waaye sama yoon bu ngeen ko jàppee sama yoon bi ci ne li mu wax sabag yónnee naa ñu ngi ma yónnee waxul tey waxul suba te xale yi bi ngeen ne bi ngeen bi ngeen bi ngeen nee agressé na est-ce que agressé nañ la bi ngeen nee agressé nañ la ak ba ma lay jox xaalis bi écart bi def na un mois may leen ma may ma rek waaw may leen ma ay fan rek ma xaalis bi yegg si bu yeggsee ma jox leen jox ko un million cinq cent oh. ku ma yoreel xaalis ma jox ko xadeeg ñëpp waaye nag su ma la ñaanee lankal ñaan awul problème mën naa rey jox ma sama. bu ma la ñaanee bu ma la ñaanee lànkal dinaa dem ci euh, doomu allaaj Hadj Cheikh Guèye. waaw SGF dinaa dem ci doom ji procureur. ne ko bu ma la ñëwee ñaan lànkal. waaw waaw dama ni waaw dama ni LCF man damay fay rek jox ma yow boo ma joxee ma fay jàmm ni ñooy. jeex na tànk da yor loo loo mot di yow ki la waxu ko bintaay agressé sam waaw foofu lañ ko agressé loolu la waxu. man daal loolu yëpp. nekk fii fekkee ma day ne yow di gëlantu waaye gëlan fu mu yem neex waaw. yow foofu nga toll. waay waay fu mu yem neex. wax ji doy lan la. asu man daal dafa am lu xaw a jaaxal tuuti sànq ba léegi maa ngi dégg am onk ci biir néeg bi mu ñëwee bi ci buntu néeg bi dégg mu continuer onk yenn saa yi aussi awa génn ci biti ba pare duggaat affaire bi xaw ma jaaxal quoi mais je sais pas qu'est-ce que ça passe est-ce que euh, awa feebar. moo ko jàpp oh? ak defi yëf xam nga ne ëmbam moom umpu la. waaw waaye léegi aw dem di ko yàq. lan la def. aw dafa la. yàq ëmb man kay lii moo tax mu jaaxal ma. léegi complication la ma nar indil. ndax mais xam nga lu ci yàq ëmb. waaw ah. comme yii yëpp xam naa ne man daal xam naa ne man jaaxle naa asu asu xoolal lii def na ko ba pare yóbbu ko hôpital ñu xool ko. hôpital. hôpital bien sûr. mais jaam hôpital bu mu ko yóbbu police dugg ci lu may wax ki ne nee na ma keroog bu ñu yóbboo xale ba hôpital mën na am police dugg ci te bu ci police duggee affaire yi enquête lay doon ñu indil ma yeneen i problème te ñoo xool nu ñuy jéem a xool ba mu faju rek wér. Fatou ne day médecin wala day lan. jëlal xale bi ñu yóbbu ko hôpital ma ànd yow ñu yóbbu ko hôpital jëlal xale bi affaire justice yooyu xoolal loolu yi fi yoon la nañ ko teg mais en attendant xamul lu xamul lu fi nekk fi mu toll nii parce que kii feebar na de. mais Thierno man damaa yoratul dërëm fi mu toll nii dama yoratul dërëm xanaa leen waaw ma jéem a woo ba ba wax ak moom man yoratuma dara xaalis. woo ko bu jox la xaalis ñu yóbbu ko hôpital waaw ma ànd yow woo ko léegi xam nga nu ñuy def. comme fi mu toll nii guddi na. presque naaj na. naa bàyyi ba suba tey naa ko jël fanaanoo ak moom sama néeg. su ma fanaanoo ak moom su ma xëyee ma woo la mais yaa may gunge di bu may dem. maa lay gunge loolu solution la. fanaanal bu suba ñu ànd man ak yow ñu dem ñu régler problème bi. waaw li ci topp nag ah ñu bàyyi ko si loxo yàlla. ah oui l' essentiel daal xool problème de santé publique la. xam naa nga wax. Oh yàq ëmb moom vraiment mënuñ ci dara. man boo ko dee wax sax man boo ko dee wax sax damay tiit ah caa mi ngi noonu mi ngi wax sax sama man musuma xalaat ni awa oh, vraiment loolu nekk na ci xelam. loolu la def de waaw loolu la def yow ëmb nga waxuñu nga ni léegi da nga yàq ëmb ba. loolu la def indi sa bopp problème indi sa yaay problème indi ñu problème ñun ñii. caam lekkatuma naanatuma foo ma fekk maa si ruq di jooy lekkatu si soo sama kanam gi ni mu demee ni ma changé seetlu woo ma fan yi ma ni ma changé. dama la ñeewantu quoi mais xoolal sant yàlla rek waaw defal ko nag defal ko nag yàlla kon bu hmm? subaa bu ñu xëyee ma discrètement. discrètement. yàlla ma kat. acca acca damaa la rek. waxtaan wax dëgg ca la hmm. naam sama kilifa waaye nag bu wax dëgg jotee dañ koy wax ndax xadee ngee di dem naroon naa fekke nag jotaay bi waaye dafa am soxla yu muy dox yi ma ne ko demal dinaa la waxal ndax fi mu nekk nii taxaw na ci tànk dalay porter plante yaa ko ñaanoon dele délai baa ngi bëgg a expiration gisaguñu dara jéem naa ba sonn wax naa lu ne pour téye ko ko rafetal xam nga xale tey yii duma leen ko jàngal réew nañu mën nañoo toroxal mag balaa ngaa egg moom foofu fépp nag damaa bëgg nga compter xaalisam teg ko ci sama loxo ma jox ko ko jàmm na ñooy wa ilaa dana def leena te du ma ko mën a téye sàngal sa bopp sutura delloo ko xaalisam bi lu ne nag maa ngi ko fi dégg ci kër gi ndax yow coow dalaa topp ba yaaroo bukki fi ne coow lu ne topp na la ci kër gi waaye man bi concerné sama doom moo ma intéressé leneen intéressé li jënt sama xaalis doom jox ko ko balaa laa xale bi toroxal ci kanam nit ñi. Euh, sën yow doob dof te bu dee ñaari fanit toog nga ko ci bangu école jabar yi ba am yépp yaa ci ëppum njàng te yow xam nga transaction financière ci diggante banque ak banque du lu gaaw waaye ginnaaw bu loolu wéyee yéen ñëpp ay seytaane ngeen ay seytaane ngeen ay seytaane yu mag ay jaxasekat man faalewuma leen man demaa ñëwoon rek nemmeeku samay mbokk bëgg am teraanga bi ma yàlla jox ma bokkook yéen waaye gis naa ne yéen ay nit ñu bon ngeen lii moo tax seen kër gi mel nii mu mel jàmm du fi am wax du fi jóg ndax ay seytaane ngeen maa ko def bu ma toogoon fële ak sama njaboot di dund ak ñoom li ma daan dund ak ñoom waaye damaa toog ba mu yàgg sama xel indi ma ma ñëw ci yéen pour bokk ak yéen li ma am ndax yéen laa bokkal ma ñëw fii ngeen di ma ngawti ngawtee man lan laay doye seen xaalis lan laay doye seen xaalis yéen lan laa koy doye yow bu sa doom waxul moom moo ne surprise la la bëggoon a defal la ma ca liggéey liggéey naa ko la ma ca war a dox dox naa ko ngeen ne fii naan kii man ma bloqué lépp yéen a wax ma bloqué naa leen jox seen xaalis xam nga yow bu ñuy wër ku jubati ba mel ni yow rek dëpp gis nga yow ba mii ñuy wax yaa ko raw ndax jubati mënta weesu nga jàpp sama doom ji yëy noppam bi fexe ba jël xaalis ci moom te naan kon ko sa man mi jub man mi sukkoon bëccëgu dara kàmb jur sama doom moom moo ma nga taxaw naan ko sa moom moo ma bëggul nga yëg ko ndax surprise da la bëgg a defal waaw waaye boo juboon da nga naan man du ma wax ak gone muy tegg ndayam di ñëw ci man di ma wax leneen demal tàggu sa nday waxtaanal ak moom jubadee tax nga di ko def te ma jur ko ah, da nga ma cëppale danga ma cee ëppale man mi ko sukkoon jur ba cëg xaalisu jàmbur teg ko fi. seen daal liy wax ji liy wax ji li koy guddal ak li koy gàttal moo yéen ay seytaane ngeen. soxlawuma seen su seen su soxlawuma ko kenn ku ci ne dinaa la jox sa xaay ba mu mat may leen ma jàmm seytaane yu bon yi. ah jërëjëf buñ dee seytaanee de wala ñuy walaakaana man ma suma laa ñaan ci àddina li ngay ñàkk jom. waaye soobee yàlla boo ko doon goxee di nga ko wàcc joxe ko yow de xaw ma kan waaye yow moom caabi da la féete gannaaw. sëñ Mass li olof Njaay di wax naan luy jot jot na gannaaw de awa wax na la mu naan wax na ki ko jox la jaaxaloon ñëpp ndëlmal ñépp seen xel mi léegi leer na naañ. ndeke awa la mu naan xadi baaba moo ko jox. xadi baaba xadi baaba men moo ko jox li mu naan ba indil ko problème yi tey. est yaa ngi dégg sa bopp. ah xadi baaba xam nga lan la ci aw. waaw yow man xadi baaba dag maa gën a xam lan la ci aw. yow am na wax joo dafa rëy loolu bu la ko awa waxee sax xanaa loolu est war nga ko gëm. mais looluy dëgg baaba di se doon seeg góor gi. waaw bàyyi awa. waa ah waaw. ba noppi dégg naa xaritu yaayam la. waa waaw léegi nag am na loo xam ne nag wax dëgg fa loolu Khady Baba loolu sañu ko sax. waaw léegi kaay la nag yow loo loo loo réeré mbir Khady Baba coow yi amoon ci kër gi yëpp xam nga ni ci loxo Khady Baba la jóge woon Khady Baba coow yi sa baay doon am ak say jabar yëpp ci loxoom la jóge hmm? mboolem fitna gu mus a ci kër gi ci loxo Khady Baba la jóge Khady Baba musul dox ci jàmm ci fitna la musa dox fitnaal na sa baay ba sa baay fase ko li tax mu génn ci kër gi lan la ay waxi musiba rek di jaxase rek looloo tax sa baay fas ko génn ko ci kër gi bi bi bi awanee moo ko jox mu naan la ko ñëpp gëm yow nag da magam ngeen bokk benn baay dégg nga te lii journal yi buñ ci jotee sa tur dina ca dugg ndax yi a bokk benn baay yi a bokk benn dret ma ne woon naa la wax pour nga xam sa position fi ngay taxawee te bu nu jógee fii dina nu dem ba ci baax nga toog ma toog ba toog ma xamal ko li am lépp waaw. man daal man li ma li ma la war a tontu sax laa xamul mais lu ñaaw lii lan la nit mën a jël ab ab ab poson sax laa ko mën a tuddee. ah poson la. parce que da ko doon rey. ab loo xam ne biir boo xam ne am na lu ca ne nga war na lor. Hmm. maanaam war na lor sax ni mu toll. ci jee ah. nga xam ne yaa ngi ci dund ak dee ah. kooku nga am loo euh, mais mais cest à jàmbul sax war te yéen noonu nit ah asamaan nag koo xam ne nag doon nga mu jëg ndeyam waaw ah, wax dëgg ya ah dëkk ci kër gi ñu dénk la baayam yow nga amul lenn loo dul def lu dul yàq biir hmm. ba lii fekk ko ci tey mi ngi nii hôpital ah moo ngi ci dund moo ngi ci diggante dund ak dee de te li garaaw mooy yow li nga xamul mooy awa xadi baaba leen ko dénkoon la ko yaayam dénkoon amoon ci moom confiance ba dénk ko ko pour mu yoral ko awa xamul kenn xadi baaba rek la xam xadi baaba moo wëlbati ku def lii awa Sénégal a ngi yàlla baax na léegi comme li nga solution bi ma jox mooy solution bu baax mhm. mooy góor gi tey nag xanaa tey dina jël responsabilité far force tey moom foog mu jël benn taxawaay bu am solo muy taxawaayu kilifteef ndax nag lii nag bakken la ah laa ilaha illallah ndax lu ne mën na ko cee fekk ah, léegi nag amul benn problème nañ dem ci moom ñu waxtaan moom mu jeex loolu kese mu jël ay responsabilité ci yàlla ci yàlla suñu borom ne biig ne la sama bëti biig yaay ne nii ay man xale yi ñoo dugal nit ñi ci lu ne waay ay man awam mi waaye asu awa lan moo ko dugal ci lii nag man nag man nag jommi naa nag ah xale bu ndaw yow lan lan ngay daw bay daanu ba nga yéeg kenn yëgul wàcc nga doo toog tara réglé pi nga say cër lii bari na yàgg na fi sëru dënk la kër goo dem fekk ko fa waaye lu mu ciy jéemi pexe lan la ciy jéemi pexe fi mu toll nii médecin lu ñu wax ah nday dafa garaaw de kaa bi dafa wax leer na nee na mm, mm. rek mais moom moom affaire kii xale bi waay mi ngi noonu man dem ci guddi gis nga bi may yuuxu di leen woo boobu tiitaange moo a jàpp ndax ni ma tëddee ak awa nii damaa jël sama loxo bi nii di ko xool mais fi ma sama loxo mu sedd guy ma ne waaw lii xanaa seddaay bi rek wala mat laa ko nii rek bu la bi ma nee nii rek ba yëkkati sama loxo laa ci laa yuuxoo ngeen daw ñëw merci nag nee nañu yàlla baax na mais ni ñu waxee man daal ah, lii laa la doon wax lii laa la doon wax am na yoo xam ne jarul nëpp nëppal ba mu méttee nee naa la asu jëlal xale bi nga yóbbu ko hôpital parce que fii ñun duñu ay médecin xamoo dafa am hémorragie ci biir xamoo dara ndax am na yoo xam ne soo ko naanee waxuma la dindi ëmb sax mais mën na yàq leneen sa biir peut-être loolu sa intestin yi lay yàq ak mm-hmm. gërëb bi rouge yi ay man te ba ma fa demee médecin bi daana ma kenn mënatu koo gis kon xam nga ne kooku mi en ba pare li gën a garaaw ak su médecin yi war nañ Hmm? ah waaw woo nañ police. dañoo dugg ci problème. ah mais lii avortement ko te nee nag xale bi deful dara ki ko jox mbir mi mu naan kooku la ñuy lijjanti. ah asu ah waxal ak ñun. asu. Mm-hmm. man ak yow rek ñooy wax ñoo ah, ñoo fi ne. keroog bi xale bi di ah. wax sa kanam réaction bi nga am. Mm-hmm. sama xel dalu ci de. Mm-hmm. su dee yow yaa ko jox lee mu naan. waxal ak moom ñu nës nësal. moo gën wut ay ñaan nës nësal. Ah. bu fekkee yaa ko jox garab yi waxal ak ñun confier ñu ndax asu bu fekkee ne cooy yi dugg nañ ci enquête bi mm-hmm. dañuy dañuy xuus ndax man moom wax dëgg yàlla man moom mbiru cooy moom ñemee ma ko nag. am na yaay ak doom sutura. sutura naan bu nit ñi xam bu nit xam nga jox ko yaa jox aw lu mu naan wala du yow. su waxal rek. waxal rek Fatou Kiné Ndeye Ndiaye dafa mel ne boobu ba léegi xamoo leen may kan man nan laa jëlee sama doom ji ma jur naan dama koy jël di ko yàqalam man yow ëmb awa bu yàqu yow yaa ko yëgal man tey ji bu ma ñaawoon jot yow laay xalaat ne yow xëy na am loo ko jox ah! waaye araam yàlla seede na ne wallaahi yëkkatiwuma dara jox ko awa man yow yaa ma yëgal ëmbam bu yàqu wallaahi ndey ñaan. Mm. ci ci gémmiñ bi na yoo ko yëgoon nga ko. Ah, maa ko seetlu yow gisoo aw ni mu furee ngeen nekk ci biir kër gi taloo leen dara. lu dul om om doo nga ma doon nekk ak yéeg ak waaj ak euh, kër sa yi fi nekkoon ak yooyu. sax wax jooju sax non li ma bëggoon daal mooy bal balaa fi yaakaar moo taxoon ma bëggoon dem ci moom waxtaan ak moom pour lépp loo xamante ni mën na ko ci xaalis mu jox ma ko ndax man yoratuma dërëm. léegi nag Ndeye Ndiaye loolu yow laa ci yaakaar soo ma mënee dimbali toog ak moom waxtaan ak moom mu jox ma ma dem yóbbu faj sama doom ji ndax xaalis nag soxla naa ko foofu te xam ngeen yoratuma xaalis xam ngeen loolu. ah yow kay li nga yoroon dem na man moom man moom wax di mm. mm-hmm. ma la wax. ñaanal ko bu baax. <laughs> soxla na ko. ñaanal ko say ñaar yaa yaa yaa jur sa doom asu man moom wax dëgg yàlla dina li ma mën ci ba dinaa ko def man mii bu fekkoon tey jii yor naa ko du yegg ci ba xam nga li ma dal barki dem lañ ma kàmbalee li ma yoroon yépp dem xam ngeen lépp fi mu toll nii nag problème bi moom amatul bennoo amatul bennoo benn bokk yaakaar ak bennoo bokk ñaari yaakaar nañu booloo ñun ñëpp doon benn travail travail bi lu waay am lu waay mën ñu xool nuñ def loolu daal laay wax waaw. waaw ah, mais ba laa fi yaakaar gisuma fii ku fi. Ah, nag ba nag day dina critique parki ne parki ne waxal ak ñun yow bu fekkee denc nga waxa. li ñu denc yow ko joxoon ngeen dañ laa cambriolé de yoratuñ dara. yow yoroo. nu ma yoree tama jox la sama xaalis ak sama xaalisu yaay yëpp nga ne ko dënd. waaye natt bi bari cent cinquante mille la woon di. cent cinquante mille ñaata weer. bu fàtte ne liggéey waaw waaw ñun nag ah, mi ngi noonu bi nag ñun suñu doom doon nii moom moom laa tal mbiru police ma ay man si yàlla suñu borom ma dañ maa boole woon ak yow mhm. ndaxte damaa nekk ci tolf tolf yu metti mhm. sama jëkkër mhm. dem na ba ñàkk liggéeyam te dañ ni ma waa kër gi ñoo ko def dem nañ ba dë- dëddale ma ak moom tolof tolof daal laa nekk ak njàkkare bu metti mhm. ma ne woon mu ñëw seet si la nga xam li ma ci mën a jàppale. d' accord waaw allah euh, en fait dëddale bi xam naa da nga ko yaakaar rek wala wala da dem ci fu la ne dañ la dëddaleeg moom da nga ko mos a dem fenn. waaw am na fu ma mos a dem ñu ne ma waa famille bi ñoo ma dëddaleeg moom. Hmm. waaw yàq liggéeyam fi mu mi ngi nii liggéeyu deful dara. Hmm, loolu de baaxul. Mhm. loolu baaxul. xam nga nu ñuy def euh, man d'habitude sax du ma recevoir du may recevoir nit ñi ni may def mooy euh, comme ni ma koy faral di defee ci plateforme yi nekk yëpp damay joxe sama numéro ñi ko gis wala ñi ñu may booleel suñ ma woowee dama leen daan toog leen seen kër ngeen yónnee ma message WhatsApp ko defee bu dee li ngay jàmbat am na wala amul ñun buñ ko xoolee danañ ko xam moo tax duñ laal nit te defuñ xaar xoolal ko ay mbiram dafa ko consultation xool léegi danga may yónnee message boo demee dama lay jox sama numéro vocal whatsapp nga may yónnee ci 78 533 16 16 ne ma sëriñ bi maa fa ñëwoon sànq dama bëgg nga defal ma listixaar ci sama diggante ak sama borom kër mhm. nga yem foofu man su dinaa la yónnee vocal bi lay wax naka la ñuy defee listixaar ak ñaata lañ koy defee dégg nga. Mm-hmm. waaw bi la 533 16 16 dégg nga. Mm-hmm. bul yemale xool bi rek sa diggante sa borom kër xoolal sa yëpp. xoolaale lépp dégg nga. Mm-hmm. incha baax na soobee yàlla dinaa a expliquer a leer